man du ma bindi ca du ma wax ay caaxaan du ma wax ay caaxaan man la burgeel du ma wax ay caaxaan Modou loo Boy Niang day daan Modou Lo jël boo xamante ne bi amul wérante Modou Lo da ngay daan kat ab bi Sénégal bi sëriñ amu fi la rek Modou Lo da ngay daan kat ab bi fi kenn amul kenn fit da ngay daan kat ab bi waaw foo teg bu bis baa nga xam man samay wax dafa ko teg dañ koy bind. waaw dañ koy bind dañ koy bind man Sarko la pire et dire Sarko day daan. dem leen ngeen toog. Zarko de pour la bambara ak waalo da ngay daan par quatre appuis léegi pour léegi nañu dem ci loolu. li ngay wax xamoo ko. yow li ngay ko. baal ba bis ba. jërëjëf sama numéro bi kaw Modou Lo loo teg loo teg ñu teg ko laa loo teg loo ñeme ko loo ñeme ñaax. loo teg ba teg ba teg xam nga teg ba lan la nga wax li may bind. li ma lay wax nga bind. wuy la ma fii Diène moo xew ak Zarko Diène ak Zarko ñoo xew waaw ay Modou Lo wala moo loolu noonu andi wuñ fi ah. waaw mais loolu andi wuñ fi. voilà loolu la demee nag wuy ma ah wuy ma ah. yow koo xam bu ñu koy woowee day am appel manqué koo xam day am appel manqué. wuy ma wuy ma seetkat doo am appel manqué balaa ñu koy woo dafa war a décorosé. dégg nga gaan moo loolu. seetkat balaa ñu koy woo daa war a décorosé comme ni am na ku may woo. seetkat yi dañ leen di nax seetkat yi xamuñu dara. waaw yow sa waay déglu ma li ma lay wax mooy loolu wuy ma ah. wuy ma amul Modou Lo fi amul Boña Baye. ñun moo loolu noonu gaan nañ waaw nañ dem wuy ma dem waaw wuy ma déglu mooy loolu ay science waaw nan nekk si bis bi ba pare nañ waaw nañ dem waay moo ko tëgg ah comme dañ koy jëmmal yee Zarko la ak Diena ah. waaw waaw noonu la demee nag càppi namit la sot sek def si. mais ngoon gi fii la de da ngay ñëw de. walaay walaay di nga ñëwaat yow yow di nga ñëwaat fii. tey lu ma assuré moom su ma ñëwee nag. waaw kéwal kaay nii la ñëwal moo la dama loo assuré sama waral wax ji. assuration waaw da may déglu instant dañu wax si waxu Zarko Diène Kairé mu waat ni moom ba Zarko day daan. waaw léegi ñu wax moo dugal si Modou Lo ak Boy Niang moom moo ko si dugal su ma neexee ma wax la ni ma koy daane. noo koy daane dinaa ko dóor. dinaa daan Diène Kairé. noo koy dóoree. door yu metti sardo ku dem ardo ku dem ardo ardo ardo amu fa var amu fa bu fa li ma lay wax télé la yu bind bindal amul ardo mais li ma lay wax nii da koy bind wala loo ko bind mais aussi yow est-ce que nekkul ne yow da nga maa bëgg a man li ma lay wax dafa leer man ne ma man dama dama la dama ne la lamba jooju amul lu ñuy Zarko la ñu wax bu ma nee mu ne bindal yaa ngi dégg yaa ngi dégg voilà lamb ji amul ni lii laam-laamee du ma waat du ma waat xam nga fan laa teg arxuraan ji laa ko sa waaye lii rajo laay wax ak télé Zarko day daan lamb ji jeex ñu yëpp si fii feetu waaye looy wax jeex na vaar am na vaar duñ dem vaar ardo du am vaar du am ardo du am vaar du am mais yow xanaa sëriñ nga léegi ah du ma sëriñ de mais gis naa lu ma sëriñ wax waaw. chaque jour gis sëñ li mu wax te dañuy juum foo ngay bu baaxul de. bu juumee man juumoo ma man li ma la bindal man nee naa lu ma la wax bindal. waaw mais lamb jooju après lo na non nañ bàyyi loola. Eh, Boy Niang mooy daan Modou Lo bindal ci man la Bourguel fii laay jaay yàpp parce que garaaw ñu ñëpp xam nañ ma man la Bourguel bu mag baa ngi fële Bourguel Bourguel Bourguel bu mag baa ngi fee day fees ay nag waaw yow doo buur géwél waaw waaw léegi asalaamaaleykum àdduna kii buur jande waa léegi léegi eh, jëwriñ léegi dañu su combat ba jën kéere ak ak ma ñëw waaw waaw dañ waaw dañ dem waaw ñu ngi ñëw xaar même ma tuuti rek léegi combat jën kéere buñ tax a jóg tey ak ki ma da mooy Zarko moom xëy na dafa lekk lu neex rek di wax loolu la gars wax mais combat bi ñu jëm Zarko am na combat bu rëy ndax gars yi bàyyi xel. waaw ginnaaw loolu dama naan asalaamaaleykum àdduna waaw nuyu naa ñëpp. waaw di kontaan xam nga si question bi ngeen ma posé quoi dinaa sawar quoi xam la mais jéen day ñëw daanu. ah bon ba sëñ Bamba. nga teg ko fan. leer fu leer laa ko teg xam nga ci lan laa ko teg. bëre bi doole bi capacité bi ñun ay doomi Grand bu doon marchandise kan mooy njëkk jar non xam nga ne ñoo njëkk jar bu Zarko simmee ko rek nga gis jaaji nga gis lu garaaw barki sëñ Bamba mais dégg xeex am dafa ne xeex bi kan moo gën a mën dàq xeex bu amee ñoom ñaar ñëpp xeex xam nga ñaar la jox cinquante cinquante xeex ku waa si ñoom ñaar cinquante cinquante la jox ku waa waaw bu jàppante ñoo mën ñoo ëpp doole ñoo gën a féetee mag xale bu ñu si moytuwul ñu rëkk la. Hmm. bak sëñ Bamba. xam nga euh, Zarko dafa koŋ Ada Fass. mais bii taxay lan. bii taf dokk lañ koy dóor. taf dokk la mais wuy ma wuy ma. lambi daaw la ak rambil leen. ah. lambi daaw la ak rambil leen. jën dañ ko wuy ma. lambi daaw ak rambil leen. may ñu tuuti nag buur géwél yaay buuru géwél yi tamit. ak yow xam nga ne jëriñoo ne sa maam dafal nank ñu ñëw <laughs> waaw. bak sëñ Bamba. wuy ma jën day ñëw daanu lu garaaw laa la wax xam na ne day ñëw daanu bilaay walaay bu mbër bi wuy ma bu mbër bi ayee bu mbër bi ayee wuy ma bu mbër bi ayee waaw déglu ma bu ma yàkkal wala wala yow jëriñoo ne nekkatul sa maam ah tamit wuy ma dama ne bu mbër bi ayee nongo yëpp ay raakaajo waaw moo aye ndongo yëpp ay rakkaajo def gang dem arena yëngal yoole te kenn du sa gaañu barke sëñ Bamba instant def ma fan <laughs> bilaay walaay mais jéen nag day ñëw daanu quoi franchement day ñëw daanu. doomu waaw loolu am na quoi doomu doomu Grand Yoff doomu xaar yàlla la waaw. fair play bi fair play am sax non à la violence surtout loolu. waaw surtout loolu quoi non à la violence waaw dëgg la non à la violence bu kenn xeex bu kenn xuloo ñun ñaan ñëpp ñaari mbër yëpp xamante nañu xama ay naataango ay naataangoo la nu làmb moo leen boole comme danoo war a bëre waaw te jéen dafa toog diir wu yàgg bërewul comme tey ñun ñoo ko may xaalis ko waa andiwaat ko si làmb waaw mais xaalis boobu noonu da koy lekk si jàmm de mais day ñëw daanu waaw mais yow dama gis ni daan lu tur bi naka la déjà. Ibulaay bu Zarko. Ibulaay i daa ñëw daan na nga jàpp mu yomb quoi day ñëw rek daan comme ça. non du yomb sax mais dañuy daan. du yomb quoi mais ñun dañuy daan. mbokku bëre yi nekk si Diène Kaïré aussi nañ ko bàyyi xel. mais ñun ñoo ko ëpp bëre. waaw ñoo ko bëre ñoo ko bu doole. nee naa ñoo ko bëre ñoo ko bu doole daa ko xeex gën ko féetee mag. waaw mais xale bu nu si moytuwul laa la wax dañ lay rëkk mbaa ñu taf la doog waaw léegi am na lu ma dégg léegi aussi da ngeen jël da ngeen jël avance su ñaamu daw. waaw mais gars avance da ngeen koy delloo ko ragal wala. avance boobu ragal ko de déglu ma déglul booy. avance boobu noonu avance boobu noonu. buñ jugee si làmb ji yalla bu nu mayee ndam incha allahu Serigne Touba xam nañ dañuy delloo avance bi. waaw loolu ngeen koy delloo. xam nga dañu koy ko moom quoi. mais war ngeen jël ko kon. xam ko xam nga ko ñan ñooy ay moromam. ñoom talfa affaire yooyu noonu ñoo la war a jël dafa war a jël ay naataangoom daal. waaw lan moo ay science lekk xam nga moom léeg-léeg day topp mooy loolu noonu day topp xalaatam xam nga. waaw jël loo xam ne sax du ñu arrange ñun supporters yi mais bii nii bu ñu yàlla may ndam da koy delloo de waaw Zarko man Ibou Laye maa sama nijaay nga mais da koy delloo de bilaay wallaay da koy delloo. ragal la wala lan du ragal de. du ragal de xam barki Alaaji Fàllu Mbàkke ragaloon ko përuñu ko. waaw ñun doomu ñun xola ñun duñu ay ragal. Ah. ñun xam nga ne ñun mbër boo nu jox. Ah. xam nga la ma lu parce que yoon yi bokkul quoi. yoon yi bokkul ñaata xale lam fi may sens. ah ma ne grand ko petit moo xew ñaata waaw mais ñaata xale lam fi may chance ñaata xale la fi Zarko may chance Zarko bu ko neexoon bu ko neexoon bu ko neexoon lekk ba mu daanee aada faas ah dootul soxlati ay jéen barki Serigne Touba su ko neexoon su ko neexoon bu daanee ba mu daanee aada faas du laaj ay jéen day rompe dem yoonam. moom Zarko muy laaj ñuy daw mu may mu turé may xale yi chance mais mais pourquoi muy delloo avance bi may na xale yi chance ñaata yoon mais bii nag duñ ko may sens. waaw léegi fu ngeen bëgg a dem kon yéen si kaw fan ngeen wax ma si kaw a papay ñaa bu ndaw. papa Lac de Guiers Lac de xam nga ne moom mooy loolu noonu ñàkk mën bëreem boobu yëpp bu ko Zarko jàppee day bëre ah barki yàlla mbaam bi Zarko mbaam la dof la billaay walaay lu garaaw laa lay tegal nii Lac de lu muy ñoddi loolu yëpp bu ko mbër jàppee mu xam lépp dëgg la waaw mais kontaan nañ si yéen ah seen joob rafet na trop jàmm si yéen ba bëri doole ah waaw mooy loolu. ak ah, kilifa gi nuyu na la di la ziar. sant ñu ngi leen di bëgg yéen ñëpp eh, di leen ziar quoi waaw waaw mais bul wax dara rafet na ñu ngi leen di bëgg yéen ñëpp di leen ziar di leen ñaan seen teewaay bi tey seen liggéey rafet na ñun amuñu lu dul Grand Yoff te tamit amul lu dul mboqam amul lu dul doomam Zarko doomu Grand la ñu bëgg ko ñu bañ ko doomu Grand Yoff la te nit du bañ deretam Grand Yoff yëpp li may wax waa Grand Yoff yëpp xam nañ ko Grand Yoff lu ñu jàppante jàppante ak problème bu ñu munti am bu dara xew